لله مسكني تبابات مثل اسمها بجاي خير ما نبات waaw mbokk yi ni leen ko waxee rek ba tey ñu ngi ci yoon mi fas yéene jëm yéen nag euh, Boborel Boborel ci kilifteefu sëñ Mbaye sàll mi nga xam ne mooy chef de quartier ba euh, ñu naal fa poste santé bu mag boo xam ne ñoom wax dëgg yàlla bañ demee jox nañ Touba ca kanam espace bu mag boo xam ne euh, mboolem lañ bëgg lépp am na fa Eh, ci kanam tuuti incha allah ñu ngi ne ci yoon bi dinañ àgg su ko defee eh, sëñ maam Thierno Ndiaye mi nga xam ne moo jiite réalisation Touba ca kanam dana mën a leeral fi nga xam ne fi la liggéey bi toll ak ni nga xamante ne bii noonu la ko waa sàkk quartier bi sàkkoo woon ba Touba kanam defal leen ko fa incha allah kon ñu fas yéene dugg si biir eh, liggéey bi rek. wajalilaay maskani Touba misras mi abijaayi xayri ma nabaat wajal ilaahi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara fanajjini wa xillahu aw saara wa kullu man abani aw mala illa ya farsuxu dan jërë ngeen jëf mbokk yi agsi nañ fi ci Boberel euh, di quartier boo xam ne nag euh, booy xool sori na biir Touba lool fii nag mbokk biñ fi Touba ci kanam doog a ñëw benn case de santé rek moo fewoon moo nekk nii euh, ñoom ñu amoon jafe-jafe fajukaay ñoo ñu jox terrain bi macha allah yaatu lool Euh, Touba ca kanam def fi lu mel nii ci diir bu néew euh, mel na ni sëñ maam Thierno euh, fa sant bi li teemu àgg mel na ni bareetut ndax boo xoolee logement yi ñu ngi toll ci di peinture monté nañ gris yi maternité bi tamit gis nga ñu ngi monté fenêtre aluminium yi ba ci dispensaire bi pavage bi gis ngeen daanaka pratiquement quatre-vingt pour cent yi noppi na mbaar mi karoon nañ ko ba pare jàkko ji mel na ni biir gi tamit kar nañ ko ba peinture ko nga xam ne li ci des mooy monter porte kon mel na ni moom euh, post santé bii di Boberel moom fii weer wala ñaari weer waras naa mën a euh, jébbale euh, caabi yi sëñ Maam Thierno. waaw salaamaaleykum sëñ Fallou ñu ngi lay siyaare di siyaare suñu Ousseynou di wax ne comme ni nga ko waxee rek poste de santé bi mën nañ ne fi mu toll nii bu ñu ko doon évaluer mi ngi ci a quatre vingt quinze pour cent. ndax euh, ni nga ko waxee poste de santé bi euh, muy euh, infirmière bi ak maanaam dispensaire bi ak maternité bi lépp pare na kon day mel ne logement bi moo des tuuti peinture te presque pare na pavage bi tamit ni nga ko waxee deux allées yi nga xam ne ñooy dugg ci logement bi ak biir logement bi ñu war a pavé loolu moo fi des à loolu li fi desaat mooy espace vert bi. parce que fii boo ko gisee ni nga ko gisee nii dafa espace bi dafa dafa bari tel sorte que mënoo pavé lépp ndax kon dina la coûter cher euh, moo tax ñu pavé lenn li euh, euh, lenn li dañ koy def espace vert leneen li dañ fi def ay aménagement ay xor wala ay ay béton noir ak béton blanc pour aménager ko ba mu rafet yaakaar naa buñ fi dellusiwaatee di nga am image bu rafet daal nga gis kon lii. ni ñu ko pave sax nii plan lañ ko génneel pour mën a def pavage boobu noonu ci biir plan boobu moo génnee loolu ma lay wax noonu yëpp euh, mu mel ni kon liggéey bi euh, cate na lool euh, ni nga ko waxee sànq un mois wala un moins et liggéey bi war naa man a pare bu ma dellusiwaatee nag ci comme ni ma ko doon waxee ci ci sànq mooy poste de santé Boberel bii ñu nekk nii tey mook post de santé Lansar bi ñoo bokk même plan ci post en même temps ñoo bokk même plan ci euh, euh, logement kon day mel ne plan standard fii moom amu fii ñoo tolloo lépp moom am na trois chambres ak salon ci niveau bu nekk deux niveaux la voilà deux niveaux la niveau bu nekk trois cembre ak salon am na cuisine am na deux toilettes benn benn bi toilette publique la benn bi toilette visiteur ba noppi euh, néeg euh, ñaari néeg yi bu ci nekk day am salle de bain euh, am salle bu mag am espace vert ci kanam am cour derrière boo xamante ne bii familial dañ koy dañ koy faral di soxla daal kon day mel ne. mu lii waaw lii bassin la boo xam ne dañ ko prévoir rien que pour ndox su manqué wala lu mel noonu. dina jël lu bare bari ci ay mètre cube bu ndox euh, te en même temps pompe bi day dañ koy euh, installer ak pompe euh, en cas urgent bu fekkee ndox dafa manqué pompe bi day da leen di jox ndox directement. lii voilà nekkoon tey mu effectivement eh, eh, bàyyi di lee euh, mooy carte de santé bi nga xam ne mooy bi fi njëkkoon a nekk. Euh, mais Touba ca kanam moo moom lépp. Mm-hmm. waaw comme dañoo defar lu rafet rafet nag pour taar bi mën a génn il faut ñu def benn miiru séparation lee euh, buñ demoon ba jëmmi jamono mën nañ fa am pédiatre mën nañ fa am leneen mën nañ fa am leneen parce que fii. moom ku ko xool xam ne yàgg-yàgg hôpital lay doon pour l'instant poste de santé lañ fi def mais yàgg-yàgg mën nañ fi am hôpital complet ndax espace bi mate na ko fii mën nga fi amaat bâtiment ci derrière bi mën nga fi amaat bâtiment te fële tamit mën nga fi amaat deux bâtiment donc fii moom euh, comme li ñu ministre bi waxoon rek nee na euh, poste de santé Lansar def na ko Euh, centre de santé waaye fii xam naa bu fi ñëwee moom daf koy far def hôpital rek euh, jërë ngeen jëf mbokk yi euh, ni ñu leen ko waxee woon yéen ko gisandoo hmm. Touba ca kanam laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam mooy lii ndax tey mel na ni poste santé bi ñu koy def fii jàpp naa ne sax boobu euh, kuréel Touba ci sam sampoogut fii ci Bobarel kon day mel ni li ngeen di def suñ Touba ngeen koy defal waaye du caagi ne dañ naan ñii ñoo cotisé ci Touba ci kanam dañ leen defal déedéet waaye dëkk bi ñuy defal ndax Bobarel sori na biir Touba lool mhm. boo fii ñëw ay kilomètres mel na ni fii sax Mbàkke la gën a jege ñu def fi lu toll nii loo xam ne suñ Touba lañu ko defal mhm. kon nag euh, mbokk yi yéen waa Touba ca kanam seeni ñaar téeméer lil birri wa taqwa bi jaayi naasi'i wa aska salaatin daafi'a hana wa ba'an min jaraadin maani'a halli wal haali bi abdali salaam wa wa maskani wa salaam وسك نفسي وسبني عما يصف في دارين عني عما وطيرا قلبي وسبني حياة وعيني في طاعة يا ربي وجل يميني كصعاب في سخاء ميمونة في سدة وفي الرخاء يا لاو يا واب يا أهل الرفيق ليعدل كنا اليوم أنفى تاريخ بحرمة المصطفى المقرب ولا لوسب وسب الرجب eh, gis ngeen ko liggéey bi daanaka noppi na feeg weer wala weer lu topp rek incha allah des na mën tàmbali liggéey bi eh, kon nag dañ fi fas yéene jóge àndaat ba tey eh, ci chantier yi xam naa ni fi ñu toll ni waxtu yi mu ngi guddi sax waaye bu soobee yàlla fas yéene woon yëpp ñu fas yéene dem nag Euh, Kër Gol Kër Gol it Touba Ca Kanam mu nga fay def lu mel nii incha allah bu ñu fa àggee euh, fépp foo xam ne bi toll na rek danañ ko fas yéene ànd ak yéen ngeen xam fan la toll jërë ngeen def kon bisimilah ñu dem. ya rabbana ya rabbana ya rabbana nasmana bi hurmati al-hasani wal ma hurmati kulli man ila sabin